waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk di wax ci turu mouvement appel 221 bi nga xam ne moo ñu fi tax a dajale tey di wax ci Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly honorable député bi nga xamante ni moo waral tey jataay bi wax ci moom nag yomb na fii ci Touba parce que nit la koo xamante ni man li tax ma ñeme cee wax dama dama dama fekke mu def loo xamante ni xëy na journaliste yi ne am na ñoo xam ne fekke woon nañ ko ci inondation bi amoon nawet bi passé Cheikh du Dakar la nekk woo ma ne ma Cheikh dama bëggoon a ñëw xool foofu nan la mel ma ne ko mën nga ñëw de waaye sooy ñëw bul fi indi benn xaalis di ko joxe parce que ñëpp a sonnandoo ne ko soo ñëwee joxe fi xaalis ak ñu dëkk bi mel ñëpp génn nañ seen i kër soo ñëwee joxe fi xaalis ñoo ànd dañ fi joxe li ñuy seddoo jëru ko liñ gën a soxla mooy ay machine ak ay bon carburant mënuma dinaa ko def bi muy ñëw mu indaalee lu mat 15 machines yaakaar naa bu ci nekk 200000 lay jar am nañu ko fekk ci yéen mënuma nan la ñuy def ma ne ko ñi gën a sonn kër ñang la ndaamaatu kër baay laat mënuma nañ dem yóbbu ko ñu ànd ñu dem yóbbu machines yooyu ak teg ci ne saabu carburant bi jeexee nañ ma ko wax mu xeex ca xeex ca ba ndox yëpp génn machine yi ba léegi nii mu ngi ak seen i ñoom mu mu may leen ko kon dèjà ku mel noonu suñ ko jàppee muy defal loolu tubaa ak yeneen ak yeneen am na kër kilifa yoo xamante ni bii jàll bi ma woowee ñooñ bi ma waxee ne ma dañu soxla ku leen dimbali si kër gi ndox mi ni mu fi taa dafa jënd machine yóbbul leen jënd ay suuf yóbbul leen mënuma si wax man ñooñu rek laa fi nekkal léegi ku mel noonu suñ ko jàppee nag ñuy toog di seetaan ñun kon li ñu ànd ak moom kon day mel du dëgg loolu nag la ñuy wax comme li sañ Assane wax léegi Cheikh Abdou Touba gépp ñi mu defal loolu lépp taxaw nañ mu métti leen métti gi leen métti nag moo waral ñu ne lu ñu leen ci woo danañ ko wuy ji ci moom Cheikh Abdou wurta yàgg fee mu nekk te ñun duñ ko seetaan su ma nee duñ ko seetaan ñun xam nañ li ñuy wax ñu ngi waajal loo xamante ni nag bis mu ñëwee moom mi ko jàpp dina xam ne ñun duñ seetaan Cheikh Abdou fii ci Touba ndax jiwuñu loo xamante ni dañ koy seetaan jàpp jàpp ko xam nañ jàpp Cheikh Abdou ku ne xam na ni li def ñëpp masaw nañ ko maanaam ay mbokkam ñoo njëkk a taxaw ne dafa jum képp kenn àndu ci moom muy parti bi mu nekk ak ak yeneen parti yi ñëpp kenn àndu si ak moom li mu def waaye njuum te day am moom mi nga xam ne moom moo ko teelu day juum amul ku dul juum léegi nag ginnaaw juum na ñëpp moom nee nañ ko mu baal ko léegi moom mu toog rek mel na ku ñu déggul te Cheikh du nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla lii ñu ko def amul kum neex koo xamante ni ci dëkk bi nga nekk amul ko ko ko koo xamante ni neex na ko comme tée bi nii mu yàggee kenn foogu doon ni la yàggee bërki démb moom mi ngi noonu dem ba réew ma ànd faa koo xam ne day saaga ay nit saago ko ba ëlbati ku ñëw ñu indi ko muy ànd ak moom di photo moom di film ak moom kooku la mën a baal asamaak sëñ sëñ bi kon looloo tax ñu ne woon bu ñëwee ba fii ñun li ñuy wax ci Cheikh Abdou mooy Touba gi mu nekkoon li mu fi doon def ci lu baax te yàlla xam na ne baax googu mu doon def lu baax loolu mu doon def yàlla du ko seetaan du nil te luñ ñu ci woo pare nañ pour def ko comme nag dañoo wax jël lépp jox ko suñu kilifa mooy ki nga xamante mooy xalifa général di Mouride muy sëñ Muntaxa mi nga xam ne moom lañ gëm moom lañ wóolu jël nañ lépp jox ko ko dañuy toog di ko diglu suñ ko digloo nag mën na ci dara ndax bu ne woon Macky Sall tey jii na ko bàyyi foog naa du fa fanaan waaye nag dañ koy diglu diglu googu ñu koy diglu moo tax ñu ne tekk rek di ko xaar léegi nag ñun am nañ yeneen pexe yoo xamante nii war nañ ca dem waaye nag loolu jotagul ginnaaw dañoo am kilifa dañu diglu moom it ay kilifaam wax nañ masawu ko di ko di jéggalu booba léegi mooy nu mel na dégguñu léegi nag comme que Touba la nekk def fi lu baax def fi yooyu yëpp mu fi def bu fekkontoon ne keneen la yàlla xam na ne bu fi defutoon yenn yi ñun duñ taxaw fii di ko di ko jëlal benn kii benn risque waaye li tax ñu ko mooy lim def jaar yu bëri sama loxo la ko jaar kon nag suñ demee ba nga xam ne lii am na ñun ñu nekk ci dëkk bi nekk ay jeunes kon danañ ko xeex te pare nañ nag pour yàggatul dara bu soobee yàlla ñu ngi leen di joxaat beneen rendez boo xam ne yàggatul jërë ngeen jëf.